may seen revue de presse dikkati naa mbaa deesul mujj ñee nag Pape Bouba Diallo tribune yéene kaay ne buñ ko ñeewuli da jàppal ni teraanga yi moom dakkul ci benn yoon policier bi nga xam ni nee ñooy dafa sujjootal sëriñam ñu daal di koy dàq maanaam rajee effacé ko yéene kaay groupe des médias bi ne ma moo taxit yéwénuk murit ci dal na ci kaw Pape Bouba Diallo ba ca mujj moom moo di bu président bu groupe boyk di Bougane Gueye Dany daal di nay jël policier bi nag recruter ko jël ko defal ko ab contrat CDI yamu ca de ko ñetti weeru njëkk yi da toog sa kër def la la saf ma fay la salaire ba la police daan fay boo ca noppee nag yàgg boy la te dama lay fay chaque salaire ci CD yi ba te yaay choisir nag liggéey kook ñàkk koo liggéey moom président Bougane Gueye Dany ne Pape Bouba Diallo la nga daan fayeeku ca police ba moom nga may wax moom laa lay fay fii ci groupe boy tribune yéeni kaay ne ma murit ba taaliba Serigne Mbacke soxna loo day fekki na mbokki muritam ya ca élan de solidarité ngir jàppale nag policier bii di Pape Bouba Diallo yéeni kaay bi dee bi ne ma moyeen Serigne Modou Kara mi nga xam ne coow li coow li mooma daal dinay woolu daar daar Pape Bouba Diallo fii ci Ndakaaru ndakaaru tey jii Pape Bouba ma nekkoon ndar dina bàyyeekoo foofee ñëw tey ci ndakaaru wuy si sëriñ du Kara xanaa beneen teraangaay daanu ci wetam rek le quotidien le quotidien ne yéen da ngeen xamul li làqu ci ginnaaw dàqu bu ba Diallo bi dañu koo nag tàq ndax nee ñu dafa abandonné postam waaye tam dafa violé la mu waatoon Pape Diogay fay ci direct news ne ko mooy yéen may leen ñu ko bu ngëm-ngëm taxawee daanaka sag sago day daal di jeex moom direct news daal di xamal gaa yi ne leen fii ci réewum Sénégal nag war na xool ak doxalin ndax itam réew mii di réew mag ñu baax ñi dafa mel ne la nekk tugal laïcité lañ ci bëgg a dugal te moo ne day réewum diine la moom Pape Diogay Faye ne xoolal ma rek lañ fi waxoon ci wàllu muuru ci Jeanne d'Arc andiw fi ma ne nañu bàyyi nit ñi ñu gëm seenu gëm ndax lii ñuy def nii di dàq nit ñi ci sujjóot maytuwul dina dugal Sénégal ci guuta goo xam ne kenn xamul fan lañ koy lijjantee Sénégal day laataa boobu dugg na ci guuta coronavirus 24 heures yéene kaay ne xalif général day muri day gën na yokk pas-pas gi ci lu fi jëlee wopp coronavirus réew mi quotidien ne vaccin yi day gaay yi ñu ngi ci yàq xelu nit ñi moo tax it kenn sawaratu ci laas ne yi xaw ma daanu ñaqoom déedéet waaye jàpp leen ni coronavirus beneen façon bu bees ba mu soppaleeku gis nañ ko fii ci réewum Gambie Dakar Times ne autorités yi ñoom boolewuñ ci coow ñi ngi xool nag yan pexe la ñuy jël ngir ñaq askanu réewum Sénégal laas ne ma desal ci man nag ma daal di lay xamal la nga xam ni moom moo am ci wàllu jalis bi ñu ne dañ koy may ñi am wopp gi coowal politique rek la de maye gi daal dee ko égg rek Sud Quotidien ne booba Macky Sall ña ngay dal ci kawam triboor ak baboor ñi yëngu ci àq ak yelleefu doomu aadama nee ñu nag mu andi ay coppite ci conseil supérieur de la magistrature la ñu bëgg waaye président ma nga ni ciel rek l'observateur moom dikkaat ci ministre yi nga xam ne dañoo yoroon ndombay tànk te président Macky Sall tekki ko seen nekkin jamono ji lan la yéeni kaay bi ne ma Aly Ngouille Ndiaye moom ma ngi bay ñaam bi Omar Youm sunu njaboot loolee la ñuy daal di dabu Mamadou Matar Cissé ak Maxime Jean Simon Ndiaye ña dem ca palais ba ba tey Amadou Ba mi nga xam ne ca impôt domaine la ko Macky Sall fekk di ko joxe ndombal tànk ba tey ngoram mayetu ko mu delluwaat fi di liggéey kon ca lu mu ne ñu dem seeti l'enquête quotidien ak les échos yéen kaay ci coowal jaare sow gii leen daal di dikk daanaka ñoom ñaar ñëpp xaw a méngoo seenug laaj ci xale bu jigéen bi jaare sow ab mystère la de yéen kaay bi ne ma téere boobee nga xam ne bindoon na ko mi ngi waxtaanee nag ak xale bu jigéen boo xam ne ngir xam li ci boppam dina jafe lool waaye lu dul boppam it bëggu yéene kaay ne laaj ba kay mooy ndax jaari sow ci biir téeréem boobee di livre bi waxul ak askan wi ci roman boobee de mi ngi doon wax ne Aline yëg-yëgam da koy daal di nëbb ni ceel ak moom Aline la mu doon dund neexu ko benn yoon ndax amul woon mbëggeel waaye tam kenn gisul woon ak jëfam akum njàmbarteem te moo ne day jaari ban ko laajee nee na mbir yi nag dama koo créé Aline moomu mës a existé waaye am na tuut soo xam ni laal na sama dund man jaari sow critique yéene kan mooy jigi sumaare ba tax nag lu kenn mës a def ci réew mi mu def ko daan yi ci gaa yi tegul ci boppam gendarmerie bu wakaam ñoo ko jàpp ñaar fukki pièces extase yi lañ ko jàppee muy drogue bu doy waar ba moom jigi day def ni leen doomu ministre la waaye tam West TV moo ko moom ne nag da ngeen may jàpp waaye léegi ñu bàyyi ma ñaari ay bés lañ ca jigi mii daal génn kaso ba moo tax enquêteur yépp jaxle sa ngéem jamono ji ci coowal jigi bi yéenekaay bi di la tribune ne ma borom mbàkke ruuxu dee jàpp nañ ko ci diwaanu Kolda moom waa ji nga xam ne nee woon na ab yonent la jàpp nañ ko ndax xalibam fukkeet ak ñeent la jëloon nag def ko jabar di nekk ak moom ëllëgam mi ngi daal des médias bi ci la gynécologue ba wax ni moom la def xale ba le soleil yéene kaay ne moom séddaleem ceeb bi daanaka lépp jaar na yoon l'exclusif yéene kaay ne coow la day a nga ca sodaab am nag musicien boo xam ne ñetti weer yu ne téeméeri million lañ koy daal di jébbal ci ñaari at yi jot na un milliard deux cent millions te moo ne day groupe de presse am saa bu xëyee di tulli ay way subaa ngoon guddeeg bëccëg waaye la musu ko verse sodaaf ci boppam moo koy versé ñu yéen doog jàmm moytu leen coronavirus day wàlle jëfandikoo gel yi respecté distance bi te moytu mbooloo yendu leen ak jàmm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 en tout cas nee nañu taalibe moom perturbéwul te itam yàqalu kenn dara te siiwal gi ñuy siiwal teg gi ñuy loxo teg gi ñuy teg loxo taalibe yi la ñu xam pour lan ñu seppi leen ci askan wi rek di wax teg nañu leen loxo tey teg loxo ñeneen doon na lu jàngalekat alxuraan yi dénoncé te te nii xamal leen ni xam nañu xeex bi ngeen di xeex daara yi waaye du sotti Imam Malick jóob moo yox seen kàddu ak carte d'identité ñu ne ko sa doom ji sax doo ko far jige waaye tumuranke gii yéen waa Sénégal tumuranke gii tey ndonga di jooy bàyyi sori ko te bàyyi mooy président de la république yaay sori ko mooy première dame ki nga xam ne mooy bara droit am ñu dox digganteem ak moom ndax moom la nekkal ci naaj wi te mooy suñu xalifa yu baax yi yàlla yàlla sàmm leen ñu dox suñu diggante ak ñoom ñoo ngi ñaan kàddu yi nañ ko jot daara mi ngi tumurank ñun danoo tàmm taamu bëgg suñuy doom jàng alquran kàddu yi bàyyeekoo ci imam Malick Diop. ca Touba cas Covid 19 yi ma nga fay yokk ci transmission communautaire surtout ci fi nga xam ni moo di marché yi ak itam béréb yu nit ñiy daje nga xam ni boo sàgganee jamono ji euh, faaw ñu soppi waneen doxalin ak ñoom ci ñu gën a sàmmanteeg euh, mesure barrière yi Abdoulaye Diagne. ñuy dund lu vague feebar bi di coronavirus Touba kenn demul mu des li nga xam ne mooy dogal yi ñu teg ngir mën a jàmmarloog feebar boobule ak taxaw temm ñor xom ci biir Touba jamono yooyu le ci marché Ocass commerçant yi ne bëgguñoo dégg benn yoon tëjum boobu boobule. ci marché bi la ñu yëngoo te bëgguñu ku ko tëj dootuñu mën a liggéey ci marché bi. bi ñu njëkkee wax dëgg yàlla ñun ñi fi nekk xaw naa métti ñun surtout maa borom kër yi ak ñiy yaxantal du ko yóbbu seen kër. lu ni mel ñu toftal ca di woote askan wi sàmmook diglay waa kër docteur yi. sëriñ bi moo ñu digal ñu takk masque yi. sëriñ bi sensibiliser na nit ñi jël xaalisam def ci. wax na nañu takk masque yi. nu itam nañ jéem a dëppoog loolu. te roy yi daal ñu jéem koo respecté rek. ci biir dëkk bu tedd bii di Touba kilifa yi taxawoon tem ci set ak setal li nga xam ne mooy jaba yi mu mel ne ñi nga xam ne ñooy kilifa yi dañoo topp askan wi ci seen bëgg-bëgg muy salfaañe digle waa kër yi musle ci feebar bile di Covid 19. Abdoulaye Diagne Touba Zik FM. Abdoulaye Diagne maa ngi lay jaajëfal jokkoon nekkoon ak ñun foofee ci Touba fii ci Dakar ak Thiès di région yi couvre-feu bi yitteel am na nag yeneen région yi teg nañ leen ay gët boo saa gënee itam yëf yi yegg fa ndax dañoo gis ni cas communautaire yi mu ngi fi gën a yaatu ci anam gu jeggi dayoon loolee sax day tax ñu samp laaj ci nii est-ce que couvre-feu bi yam Dakar ak Thiès dong am na njëriñ. ndey di mel euh, ndey xadi ci am jóg gi coronavirus gi jugaat ci réew mi daal di kawe loolu tax nag ba situation bi di gën di gën a metti muy yokk tepp kaa yoo xamante ni nañu ko jàngatee bëri na ñiy jàpp ni askan wi dañoo bàyyi seen loxo ci matuwaayu fàggandiku yi ñeneen ñi jàpp ni ña ko am tañ leen di fajee seen i kër la waaye ñeneen ñi gis ni xeex bi dañ ko tàmbalewul ci communauté yi ngir nag daal di mën a rek jàmmaarloo ko ñaareelu wàgg bu métti bi état d'urgence bu ànd ak couvre-feu daal nañu ko woon tàmbali ci région bu Dakar ak Thiès ci njogalu ko njiitu réew mi fàttali kat gisoon nañ ñaari région yooyu téeméeri kaa yoo jëroon juróom-ñeent fukk ya fa la nekkoon tey ji nag ñu mën a njortees ni mën nañ cee boolewaat yeneeni région ci bu ñu gisee ni feebar bi di tàmbalee law foofu rawatina ci cas communautaire yi mu nekk région yu Kaolack ak Diourbel nga xamante ni ci benn ay bés rek lu ëpp téeméer ak juróom fukki cas communautaire daal dinañu ko fa nemmeeku lu nu mel nag di firndeel ni faw rek ñu gaaw a jël ay matuwaay yu ca war ngir daal di dakkal lawteefu feebar bi loolu laata ñàkk yi di yegg si ndaxte kat jamono ji mbir yaa ngi gën di gën a tar ñàkk si ñàkk yooyee sax nag la ñuy wax Ndeye Khady Thiam tal ndax jamono ji ak fii fi toll ak mu ñaareelu vague bi fi Sénégal toll ak xemem teefu kilifa yi ci euh, def euh, vaccin yooyee waaye dafa mel ni nag am na liggéey bu am solo boo xam ne laaj na ko ci wàllu sensibilisation ak ñi ci wàll war a ñëpp ak information bi mu war a àndal ngir ñu mën a diligenter loolee nga xam ni mooy vaccin yi ci ne mu jaadoo ci Sénégal day dimee ndaw ñaareelu vague coronavirus bi la jël lool dëkk yi nekk ci àddina bi te Sénégal mucc ci li ni mel sax moo taxit ñu jël seen matuwaay di jéem a lijjanti vaccin su ko defee rek ñu mën a dimbale askan wi ci jàngoro ji nga xamante ne ni bés yàlla sàkk mu faat ay doomu aadama tax a mooy rek wàññi faatu yu ñu nemmeeku ci coronavirus bi bokk na ci itam cas grave yi nga xam ne lu ci bëri ñaari paj mi day métti lool ba léeg-léeg sax mu andi ay loraange stratégie bi ñu teg nag dafa ñëw rek doole si ku li nga xamante ne nii tegoon nañ ko fi mu soxal lu jëm ci wàllu plan national de lutte contre la Covid 19 nga xam ne plan boobu nag dañ ko tegoon ci le mars ci atum gannaaw ba ñu amee premier cas fii ci Sénégal plan stratégie bi ñaari 2021 bi te liñ ci bëgg mooy daal di tànn nit ñi ci war a ñàkk ci première période boo xamante ni nag warta weesu ñaari weer ñaareelu étape bi nag daanaka wutewul benn yoon dara ak première étape bi ndax foofu itam lañ ci soxla rek mooy daal di ñàkk téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ya ci askan wi te nag bu ñu sukkandikoo ci autorité yi warta dépassé atum 2022 en tout cas 2000 emploi moom ci wàllu tourisme dangu boo saag ne daañu ñàkk seen liggéey ma ci jublu mooy Euh, Covid 19 bi tax na liggéeykat yu bëri jamono ji ñu ngi daw ci risque bu doy waar ci ëllëg ñu mën a ñàkk seen liggéey ndax jafe-jafe yu seeni entreprise yi jànkuwanteel Fatou Mbaye Diop. jafe-jafe yu tukkee ci Covid 19 doy na waar loolu ci liggéeykat yi ndax ñenn ñi boo mootul dinañu ñàkk seen liggéey am nag ñu bari ñoo xam ne sax jot nañ koo ñàkk. jëm ay trente mille emplois. emplois yi nga xam ne seen bakkan ci xottu gerte vingt mille emplois ci secteur touristique. près de 4000 emplois ci poste près de 6000 à 7000 emplois ci compagnie sucrière CNTS daal di gis ni am na ay jogati ak xeex yelleefu liggéeykat yi boo demee fu mel ni mine door yi nekk Kédougou Eiffage Maritime fu mel ni APS xanañ fa ay jigéen ay responsable fu mel ni Grand Moulin Abass Ndao foofu yëpp dañ fa ab ay violation yu doy na waar. yee jafe-jafe tax synthèse FC jàpp ne nguur gi war na taxaw ci jafe-jafe liggéeykat yi. pour defar fa pacte bu nga xam ne nguur gi def ci dugal loxoom. pour que employé yi bañ ko perte. ay junni junni nit nar a ñàkk seeni liggéey ba feebar bi tàmbalee ba léegi jamono ji ak ñaareelu vague bi ba moo mootul mbir mi a gën a métti ci liggéeykat yi bu fekkee ne groupe Sénégal defu ci dara. Fatou Lambe Diop lépp ndax Covid 19 mi feeñ ca Wuhan ca Chine boobaak léegi toll na ci at. te it nag euh, ñëpp dëppoo ci ci àdduna bi bu ñii nee waaw ñii ni déet ba ci ñàkk yeeg wopp jàkk ci ñuy càmbar techniciens yi ñi nga xam ne ay spécialiste lañ ci wàllu boobee di scientifique yi ak cliniciens yi amuñu génn kàddu ci tawat joojee ci saxal ko ñàkk ko saxal ak nañu koy xeexe en tout mu des nekk wopp ju ànd ak kéemtaan lool ci àdduna bi ak ak bay reem ak siiwaayam Alassane Baldé bu dee am na lu ñu mën a d'accord lu jëm ci xeex bi nga xamante ni ñu ngi koy xeex mbas mi mu di rek ñàkk déggoo bi nga xamante ni moom la nemmeeku ci giseen gi ñu ngi fàttaliku coow li nga xamante ni amoon na ci méthode yi nga xamante ni moom la ñu taxawal bu fekkee nag ñenn dañoo jàppoon ni faaw rek ñu dëggal li nga xamante ni mooy colu masque bi ñenn ñi moom jàppoon ni rek dañoo war bàyyi virus bi daal dox ci biir askan bi dem sax ba ñeneen li nga xamante ni mi ngi bawoo ci ñàkk kóolute bi ñenn ñi fësal jëm nag ci lim bi nga xamante ni moom la waa ministère di yëkki bés bu yàlla sàq jëm ci mbas mi di covid 19 niki tey ñu daal di tàbbi ci coowal li nga xamante ni mooy vaccin bi moo xam BioNTech Pfizer Moderna wala Sinovac wala yeneen xeet yu ñëwagul coow li ne kur jëm nag ci yooyu les vaccin ne li ci ëpp ci askan bi ne ñoom duñu nangu ku leen ko duut waral jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñu nemmeeku rek mën fay jëlee bi jàngoro naka noonu it ci njiitu mi Macky Sall moom mi am ay jafe ngir jël ndogal yu gën la koy firndeel ci coow li bawoo ci couvre-feu bi rawatina sémb ñi naal ngir saxal lii di vaccination bi te daal di jur coow laaj bi samp mooy ana lan moo tax rek ñu jàpp ni vaccin bi mooy porox ndoll ba mujj ngir ñu génn ci jafe-jafe Guinée bu fekkee ni rek lii di coolu masque bi ci yenn ci ay dëkk nag wane na ay efficacité am incha allah euh, comité bu organisation mondial de la sante dana dana wax ci àljuma ji ay recommandations yu mu jagleel ci euh, xeex wopp Covid 19 ak euh, ni ñuy mën a jàkkaarloog moom ak itam plan yi nga xam ni nas na ko maanaam comme moom moo yor wata bi dawal ci lu jëm même ci vaccin yi sax dina ci defaale recommandation Casamance la ñuy dem ndaw yi nekk ci ci bi tudd Néma 2. ci Tilène def nañu ay manifestation démb ci ngoon la ñuy dénoncé mooy lëndëm gi nekk ci seen quartier boobale Abdourahmane Diallo. ay jaamaarloo yu tar ñoo amoon ci boulevard des cinquante quatre mètres jeudi bile ci diggante ndaw yu yeewoo ci ñaari quartier yu Sigicoor ak it wuy takk der yi li waral yi li jaamaarloo. lamp yi kese bañ a takk depuis mënu ma la ñaata ak la lamp yi gëj a takk. tey suñu cause principale mooy dañoo bëgg ñu taal lamp yi nii parce que c'est pas normal. manifestant yi lay jàpp ni accident yu bëri nga xamante ne jot nañu leen enregistré ca yoon bi li ko waral nekkul lu dul. lëndëm gi. chaque jour mënuma la plus de ñaata accident ñooy am diggante Kanjala ba Némade. manifestant yi lay di ñaawlu it li nga xamante ni moom la ñu duppee ab marginalisation bu seeni quartier ya. entrée Belfort lamp yi dañuy tàkk mais fii nii taaluñu lamp yi nii pour lan loolu mais ni yoon bi li doonul lu ñuy négocier bu ñu sukkandikoo ci ndaw yi. tey laa leen ko wax du menace nag fii ak lënd nañu taalal lamp yi buñ ko taalul lii dinañu gis lu raw loolu ci cinéma de ak Kanjalan. ñeenti ndaw yu police teg loxo loolee bilan bu jaamaarloo yi ñoom ñooñee ñu ngi leen di mettre en garde à vue ca commissariat central ba. Abdourahmane jalloo di jokkoo ak yéen ca Ziguinchor ngir Zik FM. Abdourahmane Diallo maa ngi lay jaajëfal xibaar benn di ay malfaiteurs yoo xam ni dañoo ñëw ci benn boutique fële euh, waaye boutique bi mu ngi tudd Serigne jaw ñu daal di koy rey. loole nag yokk na tiitaange ci fi nga xamante ni bii moo di euh, Bakel braquage boobee euh, mu ngi am ci poste de Gabou nekk ci Bakel diggante ak Bakel toll ci ñaar fukki juróom ci ay kilomètres brigade gendarmerie bi ubbi nañ ci enquête waaye fàttaliku leen commune bu Gaabu bootaale na ñeent fukki village ak ñeent waaye dañu nemmeeku ni dafa éloigné wu ba tax na dafa ñàkk karange lool kon Samba boo yooyee ci force lañu bëggoon a nangu alalu commerçant bi ba tax ñu boom ko mu ngi tudd Serigne Diaw foofee ca ca ca bu Kolda Boubacar Seye mooy njiital euh, ONG Horizon Sans Frontières dafa voyagé woon wàcc ñëw aéroport rek police ni ko ciix teg ko ji tembe kenn xamul nag lu tax ñu jàpp ko ñu ngi koy woo téléphone am di sonné waaye euh, mënul jël kon muy nekk rek euh, lu xaw a doy waar loo xam ni léegi lañu ñu dab ci wàllu xibaar moom bu Boubacar Seye boobe xëy ne fii ci kanam daañu amee explication wala ay leeral ci li tax ñu teg loxo jàmbaar jooje nga xam ne toujours mu ngi xeex ngir cellaange ci immigré Sénégal yi fukki simili ak juróom-benn moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu. Voici Trafic News. alors foo féetee euh, Baye Ale voilà Aba Diatta Mansour xam naa da ngaa déglu rek njóobeen bi ñun nag jaax nañ fi nga xam échangeur pour ànd rond point bu MG euh, e jëm cité des eaux aussi ça se complique yéen ñu bàyyi koo xaar yàlla c'est l'avenir faat aussi jëm foofu la xaar leen fay lenteur su ko defee foofu la jëm du côté de entrée solida jëm Castor aussi yéex na ci boobu la trajet même bu ngeen ko dépassé travaux BRT bi tax na ba axe boobu la jëm fi nga rond point bu Jet am na jafe-jafe su ko rond-point Liberté si am na quelques ralentissements mun nga progresser dans l'autre sens aussi mun nga fa bàyyi ko jël avenue Cheikh Amadou Bamba de Madiaye Sall da ngay patienter ndax auto yi dakkee ci autoroute bi jaaree HLM foofu la ñuy génnee ba foofu bi rek moo leen di segg marché bu HLM foofu la maison du parti socialiste dégagé wala nga jaaree noonu rek dugg HLM foofu la aussi quelques ralentissements ci boobu la trajet Actu Baymanta balaa maa laa dalal fàttaliku ni waajoojee ni woon ab yonent la fële ci diiwaanu Kolda di Samba Boy di nangu doomi jigéenu jàmbur yi nit ñi ak at yi lu tuuti tuuti nee nañu ko ciix jàpp nañu ko ndax waaja bu weesoo la mu doon saay-saay tey kàcc ci wàllu diine itam nekk te pédophile la woon da doon tëddee xale jigéen ñi amagul at yu bari te népp yonent la ba tax yegg sax ci tabax ak kaabaam <laughs> ak sañ euh, kanam gu ndaw gi <laughs> kanam ngi de ko mbott musal moogul tubaakàlla bàyyi wante salaamaaleykum maa ngi lay ziar bu baax a baax El Hadj Mouhamadou Man Sodio ñu doore ko ci championnat localu ñaareelu bëccëg bi dana démarrer incha allah tey ci aljuma ji waaw tey ci aljuma ji nag lu jëm ci wàllum basketball kon nag ñu jàpp ne tey jile jëm nag ci wàllum jigéen ñi foofu ci stadium bu Marius Ndiaye ci poule B bi ñetti waxtu nag dikk mooy dalal ñi di waa Stade Ligue ci wàllum góor ñi moom ci poule A lay nekk ñaareelu bëccëg bi kon tey di h Iseg Sport ak gendarme bu Dakar lay doon. ñu wax ci euh, CHAN bi am fële ci Cameroun Sénégal du ci bokk. waaw Sénégal du ci bokk nit ki ëllëg nag lañ ko fas yéene nag euh, tàmbali bi nag moo nekk ñeenteel yoon bu teglantoo Sénégal nag euh, moom du bokk ci boobu la CHAN bi nga xam ne nag dañ ko réserver joueurs yi nga xam ne ñoo ngi joué seen ay championnat kon Sénégal ñu fàttaliku nag ci première participation am ci atum 2009 moom demoon na sax ba demi-finale foofu ca Côte d'Ivoire mm. bu ci mujj nag mooy ca 2011. ñu ànd ci ak CHAN bi samedi bile lañu koy doo waaye Sénégal du ca bokk lion locaux yi duñ ca dem bii mooy ñeenteel bi yoon ci juróom-benneelu yoon bu ñu ko amal Sénégal ratewaat occasion ngir wane ay football katam ci wàllu local bi mu nekk lu metti ci football local bi nga xam ne bu weesoo compétition interclub yi bile compétition rek lañu am ngir wane seen bopp pays de la Teranga am ak suuf gu metti gu ñu nemmeeku ci CHAN bi mu demoon demi-finale ci atum 2009 Sénégal daal di arrêté ci premier tour bi ci 2011 ci ñaareelu participation am waaye boobu ba léegi demaatu ci ñu éliminé ko ñetti yoon ñu toftaloo Guinée moo fa jaar mu am liggéey bu rëy bu ñu war a def ci wàllu ni mel ngir mën a demaat ci compétition bi nga xam ne mooy tax jour local yi wane seen bopp moo ne day talent am na ci football local bi kon lan mooy jafe-jafe bi duñu dem ca CHAN ba saa yu occasion bi présenté woo muy jafe-jafe boobu ba tey kenn indeegu ci saafara mu di mbir moo xam ne wax nañu ko gëstu baax a baax ak lan moo koy indi ak lu koy gàllankoor ngir ñu man di dem nu ma gën a gaawee ci foofee ñuy daje ngir fësal suñu équipe locale. soxna fal di fàttali nag ni ki ëllëg lañ koy tàmbali foofu ca Cameroun boobu le nak dinañ ko door ni ki ëllëg ba juróom-ñaari fan ci weeru février. ñii di waa Lion indomptable yu Cameroun nag ñoom ñoo nar ubbi nag boobu lay jongante sax seen diggante ak Zimbabwe foofu ci stade Ahmadou Ahidjo lay doon ca Yaoundé bu ñeenti waxtu jotee buñ ci jógee nag 19h Mali mooy dara ñii di waa Burkina Faso. bii la nag CHAN test la ngir nag lu jëm ci wàllum kan gi ndaxte Cameroun sax ñoom ci ñeenti euh, stade yi nga xam ne ñoo fas yéene dalloo boobule compétition ñaari ay stade yu yees la yeneen yi nag dañ ko dañ ko defaraat kon euh, ñu dinañ ci dikkaat nu mu gën a yaatu foofu ca euh, Cameroun ak bi CHAN Euh, participation Tëngéej football club euh, ci ligue africaine des champions ancien capitaine Lions yi ci wàllu basket nee na nañu joxante loxo ñëpp ngir ndamal équipe bi. waaw ndax ndamal équipe bi soo xoolee nag euh, Sénégal gëj naa participer ci nag coupe africaine yi ba tax na nag kii di Vieux Ndoye nekkoon fi capitaine ci équipe bu góor ñi jëm ci wàllu basketball gis ne daal faaw nag doomu Sénégal yëpp joxante loxo ngir jàppale Tëngéej FC mi nga xam ne nag dina laale ak équipe yu mel ne Espérance bu Tunis Zamalek ak MC bu Alger. ci noonee dañuy teewlu kàddu ko Vieux Ndoye ak Soxna Fall après presque fukki at ak juróom-ñaar yoo xam ne ne club sénégalais qualifié wu ci boo xoolee campagne africaine bi dafa soxla ngay am xaalis bu baree baree baree baree bëri dama ciy profito pour euh, woote en tant que sportif judo Tëngéej tamit yi woo waa Tëngéej yëpp yi fi nekk ak yi nekk bitim réew euh, sénégalais yëpp sportif yëpp entreprise yeex société nationale yi waaye tamit surtout ministère des sports ak nguuru Sénégal ñu jàppale Tëngéej football club ñu fexe ba mën a janoox euh, club maghrébin yi nga xam na ne dañoo bari xaalis comme ça bu ñu fexee ba janox ñoom jàmmaarloo ñoom am sax yaakaar qualifié ci phase finaali alors ñu wax léegi ci programme championnat européen tey ci ngoon. tey ci ngoon ñaar fukkeelu bëccëg bu Ligue 1 bu France bu vingt heures jotee nag Montpellier mooy daal ñu di waa Monaco foofa ca Italie nag Serie A bi tey seen fukk ak juróom-ñetteelu la ñuy tàmbali ak derby romain bi war a dox ci diggante Lazio bu Rome ak ñi di waa euh, AS Roma loolu 19h45 lay doon ca Bundesliga ñoom seen fukk ak juróom-benneelu bëccëg bi tey jile benn jogante rek moo ci fas yéene am Union Berlin ak Leverkusen lay doon loolu bu 19h30 jotee lay doon ca Super Coupe bu Espagne moom. kon ñu jàpp na nag finalu ren gi du mujjee nekk ci diggante Real Madrid ak FC Barcelone ñii di waa Real démb dañoo daanoo ci kanamu Atlético bu Bilbao ñaax ci benn kon final gi dinañ ko amal niki ci dimanche ki ci diggante Atlético bu Bilbao ak ñii di waa FC Barcelone El kon fii la ñuy ndax keppe lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. maa ngi lay jaajëfal Baye Mante Mbow. di dawas lu thé à l'état pur di ataaya bi gën ci ataaya yi moo leen di may seen revue de presse.